diwaanu cees la ñuy wutali foofee nag kuréel li ëmb imaam yi ak bu rek cees am nañu njiit lu yees mu ngi wuyoo ci sëñ Cheikh euh, jiite naka démb nag lañu ko installé ki nga xam ne mooy secretaire général bu association euh, nationale des imams et ulema du Sénégal di euh, imam Oumar Diène moo fa daal di teewoon li nga xam ne moo waral boobee tànneef wax na ko mooy ki ngi ñu gis dafa nekk nit koo xam ne ku rek fonk diine te di ko doxal la ñu daal ci teewlu moom euh, kii di rek euh, imam Oumar Diène ci micro mbaytal xuma ak Pierre Claver Pouy lépp lu jëm ci liggéeyu imaam yi doxal ko ci région de Thiès imaam aw ulama mu ngi ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Djité moo tax ñu di ko introniser tey defe naa ne imaam Cheikh président seeti na ñëpp wax naa ñëpp itam wax tey rôle bi nga xam ne moo tax ñu di ko def loolu itam la ñu bëgg association yi nekk Thiès yëpp ñëw ànd ak Cheikh Ahmad Tidiane jiite ñu liggéeyal imaam yi liggéeyal l'islam ci Sénégal kii nga xam ne dañ ko fi intronisé tey muy Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane jiite muy imam international ñëpp di ko tiitaroo Thiès di ko tiitaroo moo tax ñu di ko introniser def ko imam fi nga xam ne moo jiite association des imams ulama de la région de Thiès